su xamee loolu ba noppi war na ci moom mu xam li nga xam ne moom mooy ay farata yi nga xam ne moo jëm ci koor yi nga xam ne moom mooy ay sunna yi nga xam ne moo jëm ci koor niki noonu yi nga xam ne moom lañ sopp ci koor niki noonu it yi nga xam ne day yàq koor ak yi nga xam ne moom euh, moom du yàq koor te nit ñi léeg-léeg mën cee def ay njuumte kon ci noonu li ñuy tàmbalee moom mooy koor atte koor koor lan mooy ay at lan mooy ab atteem ci diine koor atteem ci diine farata la li tax mu nekk farata nag moom moo di suñ boroom moom moo ñu ko moom moo ko digal ci alxuraan suñ borom moom moo ñu digal ñuy woor ak mu jot mu utal ñu ci benn weer woo xam ne képp koo xam ne ak jullit nga te amoo benn nganta lo xam ne mo moo lay teree woor farata la ci yow nga woor ko nga woor weer woowu noonu soo ko defut am na ay daan yo xam ne diine prévoir na ko yoo xam ne ko ay ay daan la lu mel ni ay kafaara ak yu ci aju kon képp koo xam ne ak jullit nga te it ngante yi nga xam ne moom lañ wax ne moom moo aju ci koor amul ci yow wu dafa war ci yow wu weeru koor jotee nga woor ba weer wi jeex léegi nag loolu dañuy yóbbu ci ñu jéem a xam lan mooy kañ la weer bi di dugg ndax léeg-léeg mën na indi aussi euh, ay euh, ay kii si biir léeg-léeg nit ñi mën nañ cee wuute nit ñi mën nañoo wuute ñii jàpp ne koor gi commencé na ñee jàpp ne koor gi commencé gul kon loolu it jar na ak leeram koor kañ lay wax mooy su fekkee ne weeru koor bi dugg si na kañ la weeru koor di dugg si yonent bi sallallahu alayhi wa daf ko leeral daf ko leeral ci xadis mu ne wóor leen su ngeen gisee weer wóor leen su ngeen euh, su gisee weer dog leen su ngeen gisee weer su ngeen gisut ngeen mottali fan weeri fan kon koor balaa muy tàmbali il faut que weer bi feeñ mooy première condition bi weer wi feeñ nag naka lañ koy xamee aussi loolu it jar na ñu def ci taxaw seetlu weer wu feeñ ci li nga xam ne moom lañ jàpp ci ngir imam Malik te moom ngir mi nga xam ne moom lañu Sëñ Tuubaa digal ñu dëgg ci li nga xam ne moom lañ jàpp ci euh, moom lañ jàpp ne lii mooy weer wu feeñ mooy kenn nit ñaari nit ñu maandu ñoo xam ne gis nañ weer wi te ñoom ñaar yëgantooñu te ñaari nit ñu maandu la nekk aussi ñaari nit ñoo xam ne dañoo maandu ñoom ñaar kenn ku ne gis na weer bi ci misaal euh, sëñ Fallou gis na weer bi ci Colobane euh, Baye Moustapha gis na weer bi euh, Titel te ñoom ñaar kenn yëgul ne moroomam gis na ko te ñoom ñaar bu ñu leen indee ci dëkk bi ñoom ñaar ñëpp ñu wóolu ñu xam lañ ci dëkk bi ñuy wóor lañ ñoo xam ne ba ku yaroon sa xaalis ay millions ñeme nga leen koo dénk ñoo xam ne daal li tax ñu naan wóor ci diine ñooñu am nañ ko nekkul benn waya waya boo xam ne moom mooy ku mel ni man jugee fële rek ne ñëw naa ne ñëw gis naa weer bi ñëpp woor déedéet diine ay atteem du ko teg ci yu mel noonu kon benn bi moom mooy ñaari nit ñu maandu gisaloo weer bi te ñoom ñaar yëgantewuñ boobu mooy première condition loolu bu amee ñoom ñaar ñu wax ko boobaa weeru koor yi dañuy jàpp ne tàmbali na kenn kese moo ko gis kenn kese moom gis na ko doonte moom ku wóor a wóor la waaye du tax weeru koor yi tàmbali doonte moom wóor na ko ne moom li mu gis nii weer waaye moom kese moo ko gis boobaa du tax ñu ñu sañloo wóorloo mbooloo déedéet waaye nag moom ci boppam koor gi war na ko moom dafa war a woor waaye nag mbooloo mi amaguñ droit woor ndax kenn kese moo gisagum moo moo ko gisagum te sart bi dafa wax ne lum ndaw ndaw ñaari nit ñu maandu bu fekkee ñaari nit ñu maandu amaguñ boobaa kenn amul droit woor boobay première sart bi deuxième bi mbooloo moo xam ne mënuñoo fennandoo ñoo ko gisandoo waxuñ mbooloo kese nekkul ne benn mbooloo mooy jógee fële ñëw ne gis naa moo gis naa weer rek ñu mën a jàpp ñu mën a jàpp ci loolu ndax bu fekkee mbooloo moo xam ne mën nañoo complot seen biir ne gis naa nga gis nañ weer loolu kenn du ci sukkandiku loolu kon mbooloo moo xam ne mënuñoo fenn mooy euh, soit am na ay nit ñoo xam ne wóolu nañ leen ñoo xam ne ñu ngi seen ñoo xam ne ñoom gis nañ ko ba tëj bët ñoom teg nañ ci seen bët nga xam léegi mbooloo mi bu ñëwee wax ko ñoom ñu confirmé ne ñoom gis nañ ko boobaa ñëpp dañuy euh, dañuy jàpp ne wooru koor bi dugg si na kon ñëpp dañoo war a woor kon loolu moom mooy parti bi si parti bi jiitu moom mooy kañ la weer wi di feeñ loolu nag léeg-léeg aussi comme avance ak avancée technologique beeg yu mel noonu nga xam ne yenn dëkk yi dañuy comme lu mel ni Turquie ñoom dañoo def seen calendrier dañoo def seen calendrier ne bis tel dañuy woor bis tel duñ ko woor yenn yenn dëkk yi def nañ ko waaye lu mel ni Sénégal ak Maroc ñoom dañoo topp ba léegi ci racinu ngiru imam Malik te ngiru imam Malik li saxal dëgg-dëgg moom mooy gis boobaa yenn borom xam-xam yi nag tere nañ euh, euh, interprété ne euh, mën nañ cee boole calcul ak yu mel noonu waaye moom li liiru Imaam Maalik li ñuy sukkandiku moom mooy gis ak bët kon loolu moom mooy kii bu jiitu bi xam moom mooy lan mooy ay faratay mooy ay faratay koor faratay koor mooy yéene ñaareel bi mooy def la lay teree dox su dee yéene buñ dikkee ci yéene bi yéene moom mooy lan mooy dangay fas ci sa xol ne fas yéene naa woor weeru koor bi yëpp ndax bu fekkee lu mel ni koor weeru koor mën nga def benn yéene kese bu weer wi feeñee foofu noonu balaa fajar di jot mën nga fee foofu diggante boobu mën nga cee yéene fas yéene woor weer wi ba mu jeex ci benn yéene mu doy sëkk jëlul nga koy renouveler ci chaque jour lu dul ne dangaa dem ba ci digg ba am ngànt dog koor boobaa da ngay yeesalaat sa yéene soog a mën a continuer waaye bu fekkee weeru koor moom mën nga def benn yéene kese yéene bi ni ñu defee moom mooy da ngay da ngay wax ci sa xol jël wax ci làmmiñ aussi da ngay fas ci sa xol ne fas yéene naa woor weeru koor wi yëpp ba mu jeex boo ko def boo ko waxee fas ko ci sa xol te dëggal ko tey def ko avant fajar ndax it yéene mu ne su koo def après fajar loolu sax moom mooy tax euh, ci ngiru imam Malik bi mu nangu nit ki euh, nit ki toog ba mu yàgg ne amul lu mu lekk amul lu mu lekk ne bis bi war naa loolu ci ngir imam Malik nanguwuñ ko ngir imam Malik nanguwul loolu ndax yéene dafa war a dafa war a jiitu fajar mënoo yéene après fajar après fajar kenn mënu ci yéene avant fajar la ñuy yéene léegi su fekkee ne yow yéene woo ba fajar jàll bis boobu mënoo koo woor bis mënoo koo woor moo xam wooru farata la moo xam wooru naafila ak bu mu ci mënta doon bis boobu mënoo koo woor kon yéene gi day nekk lu dëgg loo xam ne euh, fas nga ko ci sa xol te nga def ko avant fajar ñaareel bi ci farata yi euh, koor moom mooy nga bàyyi lépp loo xam ne daf lay teree doom lépp lu lay teree doom nag yaatu yaatu na bokk na yi ci gën a xam moom mooy lekk képp koo xam ne yaa ko tey lekk ci weeru koor boobu bis boobu noonu da nga koy fay kafaara ko kafaara mooy lan kafaara euh, euh, ni ma ko mën a waxee mooy ay daan la yoo xam ne moom lañ prévoir pour que koo xam ne euh, daa def loo xam ne waru koo def ci koor gi ay daan la yuñ prévoir daan yooyu lan la ñetti façon daan la te mën nañ koo résumer daanaka ci ñaar ndax benn bi daanaka jamono xaw na koo dépassé kon mën nañ koo mën nañ jàpp ne ñaar kese la benn euh, première daan bi te mooy biñ ci gën a sopp ñu gën a sopp nit ki euh, bu fekkee teg nañ ko daan yooyu mu def ko ndax daan yi parce que euh, soit la am nga soit def bii wala nga def bee su fekkee dañ su fekkee da nga da ngaa war a kafaara am nga soit def bii wala nga def bee ñett la waaye man ci ñaar rek laa koy laa koy laa koy yemale bi si moom mooy nga leen juróom benn fukki miskin loolu nag si ko waxee mooy lu mat juróom be juróom benn fukki nit soixante personnes yoo xam ne ay miskin lañ mooy ñoo xam ne ay pauvre lañ nga jox leen loo xam ne mën na leen a euh, mën na leen a dundal ba mën nañoo lekk ba suuf ndax euh, dañ koy wax dañ naan mudd bi mudd euh, ci mudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye borom xam-xam yu mujj dañ dañuy wax ne loo xam ne mën na suur nit loo xam ne mën na suur kon première euh, kii bi première daan bi te mooy bi ci gën a sopp moom mooy nga fekk juróom lu mat soixante pauvres nga jox leen loo xam ne mën nañ cee lekk ba suur te boobu moom mooy bi ci gën a sopp ñaareel bi moom mooy bu fekkee amoo loolu am na aussi beneen beneen daan ñaareelu daan yi moom mooy nga woor juróom benn fukki bis tey danga koy tegale boobu moom moo ci gën a métti moom moo ci gën a métti ndax koor la boo xam ne soixante jours lay nekk yoo xam ne boo ci dogee benn fan da ngay recommencé waat boo ci dogee benn fan da ngay recommencé waat kon ñaari façon daan yooyu mën nañ ne moom mooy daan yi nga xam ne moom la deg ku def euh, ku def yenn daa yenn infraction yi su ma ko mënee waxee noonu ci ci koor ndax koo xam ne dafa lekk ci bëccëgu koor te tay ko boobaa jour boobu da koy fay tey daan yi da ko ciy teg da da da ko ciy fekk. ni ki noonu ku naan ci weeru koor même chose bu ko tayee ni ki noonu ku sox soxnaam ci weeru koor te tay ko moom it foofu it ñaari tànn mën na fa am. moom dafa woor soxnaam woor mu forcé soxnaam euh, euh, jaxasoo ak moom ci forcé boobaa soxna si euh, day fay mais moom it day fay kafaara ñaari yoon ndax kafaara bi soxna si waroon a kafaara ci ci kaw loosam lañ kay teg moom day kafaara bosam kafaara bosu soxna si kon tey nit ki bu fekkee ne euh, ci koor yi daf cee def ay infraction yu bari day day am ay kafaara yu bàyyi kafaara yi aussi mën nañoo mën nañoo tegaloo kon loolu aussi mat naa bàyyi xel nit ki noonu su fekkee ne nag tëyu ko lekk gi wala naan gi walla jaxasoo bi tëyu ko boobaa fay rek moom moo ko ciy war waaye kafaara du ko ci fekk niki noonu koo xam ne jaxasoowul waaye def na loo xam ne tax na mën yu génn ci moom tax man mën yu génn ci moom boobaa momit it day kafaara bu fekkee moo ko tay day day day fay kafaara kon yooyu mooy yaa xam mom mom moom mooy yaa xam ne nit ki bu ko defee ci bisu weeru koor fay da ko ci fekk kafaara da ko ci fekk am na yoo xam ne fay doom moo ko ciy fekk kafaara da ko ci fay mooy su mel lu mel ni ki dafa lekk te tëyu ko moom dafa juum lekk boobaa bis boobu da koy fay wala mu juum naan bis boobu da koy fay wala mu génne mën yu te tëyu ko waaye nag su fekkoon ne day nelaw su fekkoon ne da doon nelaw yeewu mën yu génn ci moom bis boobu du ko fay bis du ko fay boobaa dañ koy dañ loolu loolu moom du ko fay nit ki noonu bu fekkee ne nit ki dafa wàcc dafa wàcc bu fekkee wàcc bi daf ko da am lu mu ci wan naat te ko bis boobu da ngay fay kafaara su fekkee da koo wan naat te tëyu ko bis boobu da koy fay kase su fekkee ne nag dafa wàcc te wan naatu ci dara dara waru ci kon loolu it euh, mat na xam kon bu ko defee ñu jàll ci sunna yi kon faratay comme ni ma ko waxee woon ñaar yooyu kase la moom mooy yéene ak bañ a def loo xam ne moom mooy moom mooy yàq koor ñaareelu kii bi moom mooy ñaar bi ci bi si teg moom mooy sunna yi sunna yi nag ñett la bi ci jiitu moom mooy yéexa a dog do teel a dog teel dog dafa bokk ci sunna yi teel dog nag suñ ko waxee mooy bu jant bi sowee su jant bi sowee rek nga xam ne bu timis bu timis jotee rek nga bañ faa nekk di xaar ba ay dee di waaj a jot nga naan damay dox di jaay njàmbaarte déedéet kenn digaluloo liñ la digal moom mooy jant bi bu soowee mooy timis bu jotee demal nga dog yi kenn la kenn nekku fi di la wax na da ngay jaay njàmbaarte di bàyyi ba ay gee jot wala yu mel noonu loolu kenn sant loo kon yéex a yéex a dog loolu dog moom mooy na si nga xam ne moom lañ moom moom lañ santaane dog bi aussi am na yuñ ci taamu taamu nañ ci nit ci mu su ko mënee mu dogee tàndarma mu dogee lu tooy lu tooy taamu nañ ci tàndarma tàndarma ju tooy surtout tàndarma ju tooy bu ko amul mu tàndarma ju wow su ko soo amul tàndarma mu dogee ndox kon euh, tàmm nañ ci nit ki mu dogee lu mel noonu ñaareel bi ñaareelu sunna yi ci tegee moom mooy yéex a xëdd xëdd nag daa am fu tàmbalee ba fu yem xëdd fan lay tàmbalee moom mooy buñ jëlee guddi gi xaaj ko ci digg bi deuxième euh, deuxième euh, xaaj bi fu mu commencé foofu la xëdd tàmbalee

une heure une temps maximum une heure temps mu soog a dogee mu soog a xëddee foofu noonu donc looy xëdd lu mel ne ay cinq heures euh, ay cinq heures heure boobu noonu xëdd ko euh, moom mooy sunna si nga xam ne moom lañ moom lañ moom moom lañ saxal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa diggal nit ñi euh, ñuy xëdd ndax wax na ci benn xadis ne tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee xëdd ndax xëddkat dafa am barke boo xam ne moom moo ci nekk ñu si bari dañuy wax ne dañuy dañuy euh, njàmbarte woo parce que ne man du ma xëdd man du ma xëdd am na ñoo xam ne ñoom pour ñoom loolu euh, kii la euh, benn wóoral la daal am na ñoo xam dañuy yaakaar ne bu ma xëdd ngóor la déedéet xëdd mooy ngóor xëdd mooy ngóor parce que xëdd xëdd la ñu digal digal la ñàkk xëdd kon xëdd moom mooy ngóor waaye ñàkk xëdd du ngóor bi si ci ñetteelu kii bi ñetteelu sunna bi moom mooy fexe ba sa làmmiñ doo ci wax lenn loo xam ne ay jaaxaan waxuma sax wax yi euh, loo xam ne ay ba ba bàkkaar da ci nekk comme lu mel nga toog di fenn wala jëw wala yu mel noonu waaye sa làmmiñ doo ci wax sax ay caaxaan sa làmmiñ doo ci wax sax ay caaxaan rawatinaan la nga ciy jëw wala ngay fenn ak yu mel noonu loolu moom ëpp naa def. ñetti sunna yi nekk na sunna yoo xam ne euh, lu ñu war a bàyyi xel la bi si jiitu moom mooy ngay teel a dog ñaareel mooy ngay yéex a xëdd ñetteel mooy. nga fekk sa làmmiñ ci bépp wax yoo xam ne wax ju amul njariñ la beneen ponk bi si tegee euh, moom mooy yi xam ne moom lañ sopp yi nga xam ne moom lañ sopp ci koor gi yooyu nag yu bëree bari la yaa nga xam ne sopp nañ ko ci nit ki bu wooree mu def ko ak ci biir weeru koor yooyu yu bari la mën nañ ne lépp loo xam ne nit ki dañ ko koo digal ci lu baax sopp nañ ko ci koor gi mu yokk lu baax loolu mu doon def moo xam ku doon jàng la bu fekkee da yow lu dul koor daan nga jàng ñaari hisib wala ñetti hisib par jour gi bu ñëwee fexeel nga yokk ko def ko cinq wala six su fekkee daan nga jàng juróomi euh, euh, juróo juróomi hisib fexeel ngay jàng fukk su fekkee ne daan nga jàng benn xasida fexeel nga jàng ñaar ba ñett su fekkee ne daan nga saraxe fukki dërëm fexeel di saraxe cent franc wala cinq cent su fekkee ne daan nga euh, xidma xidmaal nit ñi une heure de temps par jour del xidmaal nit ñi cinq de temps par jour nga xam ne lépp lu baax loo xam ne digaloon nañ la ko avant koor gi fexeel bu koor gi ñëwee nga multiplier loolu nga bañ a ci li nga daan def avant koor gi mais nga multiplier ko soit par deux wala par trois wala par cinq fexeel daal ba lépp loo def ci lu baax nga yokk ko loolu sopp nañ ko bu baax ci koor gi lu mel ni zikir mooy tudd yàlla tudd yàlla te suñ ko waxee euh, jàng alxuraan da ciy dugg euh, zikir da ciy dugg yooyu yëpp sopp nañ nit ki di ko def ci koor gi nit ki noonu it euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te julli ci yonent bi boobu noonu jàng xasida yi da ciy dugg ak yeneen ak yeneen ak lépp loo xam ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek da ciy dugg ni ki noonu dundale ak saraxe dundale moom mooy nga fexe ba nit ñi nga euh, surtout ci jamonoy ndox óoru ndox bu jotee nga fexe minimum chaque jour nga su fekkee mën nga ko chaque jour ngay dogal kenn su fekkee mën nga ko su fekkee mën nga ñaar ba ñett ba ñeent loo mën dal na nga fexe ba chaque jour nit ñi nga di leen dogal ndax loolu aussi tiyaabu bu bare bare mu ngi ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne képp ku woo képp koo xam ne nit woor na ba ngoon nga jox ko mu dog kooram googu noonu tuyaabu jum ci am yow di nga am tuyaabu ju toll noonu ci di nga am tuyaabu toll noonu te du yàq ci ay tuyaabam dara lu mel ni ki nit ki suñu xaalis dafa woor tiyaa euh, ba mu wooree ba ngoon yàlla dig ko ci koor googu noonu juróomi tiyaaba yow nga ñëw jox suñu xaalis loo xam ne dogay dog la loo xam ne ci lay dogee suñ borom buy fay suñu xaalis juróomi tiyaaba yooyu yow it da fayaat juróom day jëlaat juróom yow jox la day day jëlaat juróom jox la nga xam ne te du yàq ci tuyaabu jooju noonu dara ñu may xamal ne temps bi des bariwut xanaa ma jéem a euh, gaaw rek niki noonu bokk na ci jàng alxuraan jàng alxuraan aussi ñu ñu koy faral di farataal ci weeru koor ndax alxuraan dafa nekk loo xam ne ci weeru koor lañ ko wàccee ci weeru koor lañ ko wàccee kon dañ naan al euh, weeru koor anniversaire alxuraan la anniversaire alxuraan kon war nañ di gën di di ko di ko di ko gën di jàng xanaa ñu jeexale ci euh, yenn dénkaane yoo xam ne sëñ bi doon nañu ko moytuloo ci koor rek ndax yéreem boobu noonu euh, ñu tuddee Masaalikul Jinaan muy wax ne muy wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci koor muy wax ne su ma siyaamu fan fan tabihi mu ne na nga xam ne koor aju ci ñàkk lekk ak ñàkk naan kese képp ku yaakaar ne koor ñàkk lekk ak ñàkk naan kese kooku xamul luy koor ak lu ko tax a jóg koor nekkul lekk ñàkk lekk ak ñàkk naan kese mu ne ndax bëri na ñoo xam ne danañ xëy suba ba ngoon ant ak nit ñi woor coono dong lañu amee seen koor gi coono dong xiif bu metti dong moom lañ leen di fay moom la am ci koor googu waaye du ci amee dara ndax mu ne képp koo xam ne koor terewu ko bàyyi wax ju bon terewu ko bàyyi euh, jëf ba jëf ju bon lépp loo xam ne mu ko doon def jëf ju araam wala yu mel noonu koor gi kon ñëw nga continuer di ko def na la leer na yow yàq ñu wóor yéen a na la leer ne yow yàq ñu wóor yéen a yéen yéen a yem benn benn àtt mu ne it képp koo xam ne moo ngi woor na moytu yii nii mooy xëdd di xëdd wala ngay dog di lekk lekk gu bari surtout am ñu koy moom ñu koy moytuloo bu baax ci euh, ci masaali ko jinaan ndax nit ñu bari ñoom dañuy jàpp ne woor nañ suba ba ngoon liñ pertoon ci suba yëpp dañ ko war a rattrapé dañ ko war a rattrapé ci ci ci ngoon gi loolu boo ko defee day mel ni yow ko gi euh, am toog dangaa am diir boo xam ne wóoroo ko woon rek nga bëgg koo euh, rattrapé feneen déedéet nit ki euh, nekkul ne suba gi lekkoo ba ngoon ba ngoon rek su bu ngoon jotee li nga lekkutoon ci suba gi da a fayoo ko ci ngoon mu ne am na ñoo xam ne danañ danañ xëdd wala ñu dog bu ñuy xëdd wala ñuy dog dañuy mel ni ay nag yuy lekk ay nag yuy lekk suñu tubaab moo ko wax du samay wax nee na am na ñoo xam ne suñuy xëdd wala ñuy dox dañuy mel ne ay nag yuy lekk duñ jekk rek lekk duñ jekk rek duñ jekk rek dugal seen biir te loolu aussi lu lu lu lu mat a lu mat a moytu la ndax dafa nekk loo xam ne nit ki su ko defee yaramam day tayal surtout ci heure dox nit ki bu fekkee dafa dox dafa dafa ndogu lekk ba biiram fees naafi la sax problème lay doon ci moom naafi la sax problème lay doon ci moom kon yooyu it yu mat a moytu la yoo xam ne euh, war nañ cee bàyyi xel kon xam naa dañuy taxawu foofu ñu jégalu baax ci kàddu yi lépp loo xam ne dëng na ci suñu gàttu xam-xam la lépp loo xam ne jub na ci suñ borom la in uridu illa al-islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu